jërë ngeen jëf amati mbégteeg bànneex topp kii ñuy topp susun seen bi di live Dakar 221 daara ak yéen ak campagne élection législative yi xamante ne si ne jamono jile ña rek daanaka sa donneel virage ba das koy doore ko ki xamante ne si ne moo di Bougane Gueye Dany kàddu yi mu yëkkati di xam la ne rek élection yi nu jëm daal képp koo xamante ne si ne wateel nga Pastef moo di rek wateel nga ki xamante ne si ne moo di Omar Diagne te wateel ki xamante ne si ne moo di Omar Diagne moo di rek xeex li nga xamante ne si ne rek moo di kilifa diine yi xamante ne si ne daati na fi nekk ko kooku di Bougane Gueye Dany daati yëkkati uh, kàddu yu mel noonu daat koy xamle si li nga xamante si na ña nga doon def seen i di yëkkati rek li nga xamante ne si ne moo di seen i kàddu kon nag moom muy woote rek ñoom ñu daal leen koy wooteel ko kooku di Bougane Gueye Dany waaye nag das koy doo rek wala sax nu jeexale ka ki xam ne moo di ilimaani Ousmane Sonko mi nga xamante si rek naka si démb rek la doon amal li nga xamante si ne moo ay caravane akum meeting bu xamante si ne uh, bari woon ay nit lool mobilisation bu am doole lool mu daat koy amal fa nga xamante ne si na moo di foofee sa Mbàkke ñu nemeeku na rek mbooloo mu takk loolu daal ñoo ko wuyu si woon sa la nga xamante ne si na moo di woote boobee nga xamante ne si na daat na nga fa doon woote mu daat fa yëkkati rek la nga xamante ne si na moo di ay kàddu ak ay rek moom kooku di Ousmane Sonko awal fa lu mel noonu fi nga xamante ne si na moo di Mbàkke nga xamante ne si na lan fa nemeeku si am mobilisation daan bëri lool takku lool mu daat fay det amal mitin bu xamante ne si rek daan nay jéggi dayo lool foofee sa Mbàkke moom kooku di Ousmane Sonko mbooloo mu takku lool ko teeru ànd moom sa la nga xamante ne si ne rek moom jamono ji moo di bëgg-bëggam ak nisiram moo di rek bëgg rek ñu jox ko la nga xamante ne si ne moo di am majorité foofee nga xam ne moo di sa assemblée national moom kookee son Ousmane Sonko amalab meeting bu mag fa nga xamante ne si ne moo di njiit la nag Cheikh Thioro Mbacke xamante ne si ne boobu la département moom la jiital sa liste